te ca tegu mooy waa aslaahu nag aslaah aslaah bun sharik kenn la woon ci saxaaba yi nga xam ne ñoo doon liggéey yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon mat daabaam gi benn bis daf ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa soxlool moo matal ko daaba gi fekk maa ngi amee janaaba man daal bëgguma laal daaba ak yonentu sallallahu alayhi wa sallam fekk laabu ma ba ma yonentu wooyee ma ne ko laabu ma yonentu noppi ab diir jibril daal di ñëw indi laaya tiim bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ma tiim ma tiim kon aslaax moomu ci la tiim wàcci am nañu wax loolu maanaam moo tax yàlla yoonal tiim moom mooy sabab ba ñu ne déedéet ndey ay chutu mooy sabab ba ci benn caq bu réeroon cib xare mu di ko seet benn ñi tardé amuñ ndox mm-hmm. waxtu julli jot yàlla wàccee dégg nga sant leen ñu tiim <clears throat> lu gën a wér nag mooy nday Aysatu si la sabu tiim wàcc waaye aslaahu daal liggéeykatu yonent la woon sallallahu alayhi wa gi woo moom waalin mu aji méngoo am raaxilatin muxtaari mbiram daabaak yonentu buñ tànn bi xayril baraaya gën ci mbindeef bi afdalil umam yi moo gën ci xeer yi مويرون رون جيل مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ميغا خامن ني مو گن تي خير مو يونتي بي گن تي مبولم من دي في اسلام بن شريك ايو تيم مي ايتيم قالوا واخنا ني قن واتنا في تي موم كوم ني نكو وخه لغي وقيل واخنا ني عائشه بن عائشه تي لا واتي في اشهر في اشهر الكلم كلمي تي لي گنا تي وخ وخ يي گنا تي دا مو ca caq bu réeroon ay lay ay mu di ko seet ba nit ñi sonn yonentoo ngi dégg nga <coughs> tëdd nag di nelaw jege naa yoon de ne waaw Aïcha téye fi nit ñi ngi ni amuñ ndox Aboubacar mooy bàyyi ja mer lool dem di ko cuuj baaraam yi di di ko wax lu soob yàlla wax na ko ko. ne Aïchatu ne li tax yëngatu moom mooy bañ yonent yeewoo sallallahu alayhi wa waaye daal la mu doon def metti na ci noonu la yàlla wàccee tiim wa jundubun ak jundub ci liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokkoon jundub nag boo ko xamul mooy abu zarin waaw di ku dëggu yonent doon wax ne ne asmaan tiimut suuf yëkkatiwut ku gën a dëggu kaddu abu zarin al ku gën a dëggu daal nekkul ci kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam Abu Zar daan na wax na ne yawmal qiyaamati yéen ñëpp maa leen gën a jege yonent bi ñu ne lu tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax naan ki leen ki ki ma gën a jege yawmal qiyaamati mooy ko xam ne nii ki ma gën a jege ci xeet yi mooy ko xam ne nii ni ma ko bàyyee noonu la dajeeg man xaal bi ma taqalikoog moom ci xaal boobu la des boobu muy dajeeg man kooku mooy ki ma gën a jege Abu Zar ne man. xaal bi ma bàyyi yonentu sallallahu alayhi laa mel ba léegi mosuma soppeeku waaye kenn ku nekk ci yéen dara dugg na ko daal <coughs> moom la yonentu waxoon sallallahu alayhi wa sallam yéex a ñëw ñëw yonentu gis ko ngi dox moom dong di ñëw waaye buy dee moom rek dee buy dekkil moom rek la dekkil dafa nekkoon Sham ca Muawiya boobu Muawiya la Seydina Ousmane fal foofu waaye daal mu gis ñi ni ñuy noosee ci alali àdduna ak daal critique loolu wane na lii daal yàlla ngañ la xalal ji lay yoon moo ñu séddale ko joxe ko te yàlla tax dund dund su feyanki daal moom noonu la xamoon dund boo xam ne dégg nga doo doo àdduna du fës ci yow ah noonu muy waaree nit ñi nag nit ñi xaw a soppeeku Muawiya daal di ko boole daal ne daal moom yàq na nit ñi fii Sham si la ko Seydina Ousmane wooyee mu ñëw bu ko Seydina Ousmane mu ñëw mu ñëwit critique rek de ne xalal ji daal ngeen a jël di def nii di noos yooyu yooyu daal ma naan duma ci yonentu sallallahu alayhi a soppi leen ah Seydina Ousmane na nga ne ko ah bu noonu la daal mën ngaa beru boo ko bëggee waaye nag lii nit ñi def moom xaraamut ndax kenn jëlul alal di jàmbur ku nekk sa alal nga yore daal ci la moom beru dem ta dégg nga rabasa benn barab daal di fa beru ak soxna am yàlla na ko yàlla gërëm bis ñëw na mu muuru ñu andi ko ci Seydina Ousmane mu ne ko bokk ma ci xawaari yi nga xam ne dañoo bañ sa dañoo bañ sa bokkuma ci ñooñu abu Ousmane eh, na ko ñun de jërewuñ la Cham andi la Medina lu mooy nga dëkk ak ñun mu ne ko waaye man amu ma soxla ci dëkk ak yéen bàyyi leen ma ma nekk rek moom ca la beru dem ci àll ba moom ndax dawaa dina gis ngeen saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen xaal yi wutee yéen yore woon mënoon a jege lool ndax jege na eh, eh, xilaafa ga mënoon a xam lu ne waaye daal moom la doon dal xelam mooy dëddu àddina ba tax mu bañ ñëpp dem ci àll ba dëkk fa moom dong toqalam naqadi wun amul lu ko tiis yow nga nekk ci biir ni ñi yàlla may lu ne bis mu nekk ngay tawa taka ñaxtu ah war ngaa xoolaat sa bopp nag dem ci rabaza sallallahu alayhi wa sallam moo ko tànn doon Seydina na ko dàq nag bu ko defee mu demee bay dee soxnaam Umu Zar daal di jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko damaa xam ne yow rek na dee ci àll bi dégg nga mu ne ko bul jooy ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam li moon na ay nit yu bari ne dina am kenn ci yéen koo xam ne ci xàll lay dee moom dong mooy dee te ña ña ña fa nekkoon ñëpp ku nekk dee na ci dëkk bu mag maa ci des kon fii rek laa mën a dee te waxoon na ne am mbooloo danañ ñëw waaw dajeeg man kon dana am dana am ñu fi ñëw maanaam lu doon soxna si di jaaxle daal mooy ku ko suul mu dalal xalam ba mu dee mu ne ko su ma su ma dee nag jël ma rek teg ma ci yoon bi gawar goo njëkk a gis rek xooleen ñu ñëw ba mu génne àddina soxna ci def loolu ci noonu rek mu seen ab gawar ndeke Abdullah ibnu Mas'ud la mu ngi ànd ak délégation boo xam ne ñu ngi jógee Kuufa <clears throat> moo ko julli moom Abdullah ibnu Mas'ud ñu daal di ko denc sallallahu alayhi wa sallam foofu lañ dencee saxaabaam boobu foofu muy Abu Zarin ku dëggoo ku dëddu woon àdduna ku ragaloon yàlla liggéeykat yonent la woon sallallahu alayhi wa sallam moom lay wax jundubun ak jundub wa xuneyn ak xuneynu xuneynu mbaa yàlla abbas bun abdul mutalib la woon daraan liggéey yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga nag yonentu may ko bàyyi taxam boobu di abbas <coughs> dégg nga waaw mu daal di ko goreel yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu génnaan doon jàpp bu jàppee ba pare ndawal ndawal njàpp la xuna ne def ko doon denc xaw moo ci gën a jekku ndax yooyu moo ko doon liggéey bu ko téyee rek saxaaba yi daal di tawat ñu ne ko xam ne lu tax nga def li mu ne dama ko téye pour naan ko rek def ma ci dara gis nga saxaaba ne leen xëccee ndoxal njàppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xunay nu moomu ci ñu doon liggéey yonentu la bokk amoon naag ci ci eh, ndabal njàppam wa Nuaym ak Nuaymu Nuaymu bun Rabia moom moo waxal boppam daan naa liggéey yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa na liggéey yonent bun Rabia loolu moo ko waxal boppam ñu boole ko ci liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wax gi wax ne kuntu axdumu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daan naa liggéey yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhaajirun ak muhaajir muhaajir mbaa yàlla umu salama la woon umu salama ñu koy doon dàkk moom muhaajir ñu ko doon dàkkantere abu xusayfa saxabaam yonent la woon liggéeyal na ko sallallahu alayhi wa sallam <coughs> fekkee ba ñu ubbi misra daal di fa dëkk ba ci kanam mu toxalu fa dem ci dekk bu ñuy wax taxaa fa la dëkk ba ni muy génne àdduna moom muhaajir dégg nga muhaajir moomu nee na liggéeyal naa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mosuma wax lu tax nga def lii mosuma wax lu tax nga bali ni ko anas waxee moom it waxee na ko ko beneen waaye mooy liggéeyal naa yonent bi juróomi at waaye mosuma tawatal dara lu tax nga def wala lu tax nga bàyyi loolu yonentu sallallahu alayhi wa sallam mosuma koo dégg nga iyaadun ak iyaat moom mu def ayaadun ñu ko doon dàkkantele abu samhi liggéeykat yonentu la woon sallallahu alayhi wa sallam moom iyaat moomu dàkkantelam di abu samhi wax na ne daan naa liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bu bëggoon bu bëggoon a sangu daf naan ma faree ma gannaaw nga làq ma mu làq yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba ni muy paree borom xam-xam yi nee na nag muhaajir moomu wala boog iyaat moomu dañ ko rey waaye xamuñ fan la dee sallallahu alayhi wa sallam mu ne xilaalun ak xilaal xilaal bun xaaris ñu ko doon dàkkantere abul abul hamra mbaa yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la liggéeykat yonent bi sallallahu di ko tuddee xilaal bun xaaris ñi ne xilaal bun fafar la sallallahu alayhi wa sallam dégg wax na ne toog naa juróom-ñetti weer yoo xam ne yonentu sallallahu alayhi wa saa yu julli fajar dafay ñëw ci buntu àll yi waaye daal di fëgg na ko julli gi julli jugal julli ndax yàlla dafa bëgg yóbbu soba ci yéen waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laabal leen loolu mooy cosaanu kilifa di xëy njabootam pour ñu jaamu yàlla rek laa wax de sallallahu alayhi wa sallam <coughs> kooku mooy dégg nga iyaat liggéeykat yi nuntu loon sallallahu alayhi wa sallam wala boog xilaal xilaal bun xaaris dàkkantaram di abul hamdaa qul waxal bi saad yim seen ab saadu saadu mi mbaa yàlla aboubacar la woon dafa bokk ci jaam yi aboubacar jëndoon ba goreel leen daan na liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saadu bun abi waqaasin ak saadu bun abida ñoom it daan nañ liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi <laughs> kon mën naa nekk ku ne ci ñoom wala nga ne xul waxal bi saadim seen ak texe ñii di liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoom dinañ texe maanaam yëpp na ko kon kon saadu mbaa yàlla Abu Bakar ci liggéeykat yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam saadu bun abi waqaas ak bun abi da ñooñu ci dañu woon ndax xone ni léegi nettal nañ wax nañ ne yow keroog Xaybar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saadu bun abi waqaas ak saadu bun abida la tegoon ca màngama kon ñooñu liggéeyal nañ ko saadu mawla abi bakrin tamit mbaa yàlla abu bakrin kooku boole woon ko ci ñu doon liggéeyal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak zu mixmarin zu mixmar kooku ci liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk muy xaalid bun yasaar alxifaari ñu ko doon tuddee zu mixmar xaalid mooy turam kooku ci ñu doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ doomi mbokkam na la mbokkam na bu góor ak mbokkam bu jigéen maanaam yaayam ak baayam yëpp mbokki na la na Yaashi ko yóbbu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngir mu liggéey yonent bi wuutu ko sallallahu alayhi wa sallam mooy Zuum Mexmar Xaalid la tudd kooku nañ ko ci ñu doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa asmaahu ak asmaa hind ak hind axu asmaa mbokkam lasmaa waxat laazama taqa taqoo nañ min xidmatil xikami xakami ci liggéeyal attekat bi ki nga xam ne ni mooy attekat bu mag bu mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay liggéeykatam asmaawo ak mbokkam asmaawo mooy hindu ibnu hindu asmaawo ibnu xaarisa ak hindu ibnu xaarisa ñoom ñaar nag ay góor lañ ndax arab yi daan nañ tuddee hindu turu jigéen ak turu góor yëpp asmaaw ak hind ñoom ñaar xaarisa mooy seen baay ñu bokkoon ci banul aslam daan nañ liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayratu nee na man daal hind ak asmaaw gis naa ne ay liggéeykat lañ ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yàgg giñ yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ca buntam waa ak ak liggéeyal koy ko yàgg liggéeyal kon liggéeyal na yonent ba abu hurayratu seedal leen ko diir ñu ngi nekk ci bunt yonent bi rek buntu kër yonent sallallahu alayhi wasallam fa lañ laa nekk baabu Hurayra nee na taqoo giñ taqoo buntam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak liggéeyal yi ñu ko liggéeyal moo tax daal gisuma leen lu may ne si liggéeykat yonent bi lañ bokk mooy Hind ak Asmaa dégg nga su ko defee ñi ñoroon liggéey yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam seen jamono ci góor mu ñëw nag si ñi nga xam ne ñoo doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jigéen mu ne amma nisaaw bu dee jigéen ñi fa salma salma moo ci njëkk salma moom la ñuy wax umu rafia di soxnaay abu rafia nee nañ mbaa yàlla safiya la ñu ko daan tuddee mawlaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam mbaa yàlla yonent bi liggéeyal na yonent yàlla muhammad salma sallallahu alayhi wa sallam ndax nettali nañ ci moom mu ne yonentu musul am góom lu may digal na ma ko ci garab goo ñuy waxin naa kon loolu day day santaane ak faju boo gaañoo da ngaa faju yonentu saa yu amaan góom rek daraan faju salma daan na ko sottil saafara garab googu mu di ko fajaay góomam sallallahu alayhi wa ndax daraan teew ci xare yi jafe-jafe yi daraan da ko doon dal ci yaramam waaye dafa daan faju moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga Salma moom nag nettali nañ digganteem ak jëkkëram Abu Raafi nettali gu xoromu moo wax ne moo wax nañu moom lañ doon tuddee Ummu Raafi dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama jëkkër Abu Raafi daal daf may dóor rek ah yonent la Abu Rafi aloo jotee ak Salma Abu Rafi na ko Salma daf may lor moom daal daf may tooñ rek ci gàttal bu olof nga ne loolu lay firi lor gi may lor moo tax ma dóor ko Salma ah nan nga loree Abu Rafi sa borom kër Salma ne defuma ko dara daf doon dafa toj le jàppam dafa toj mu bëgg julli ma ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit ñi buñ génnee ngelawal daal daf leen digal ñu ñu jàpp door a julli loolu ma ko wax moom la ma dóoree comme naa may kaf kaf na rek ah yonentu commencé re sallallahu alayhi wa sallam ne ko Abu Rafi pourtant loolu mooy lu baax nag waxu la dara lu baax rek la wax sallallahu alayhi نكرون داكن تري أم رافع كن لو أنت يرون لقي يرون تبي صلى الله عليه وسلم يجي كن يرجع لآخرة هذا نور دير الإسلام والسلام ثم توفيق إلا بالله علي توكل توليوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته